assignment du noir mon attendé documentaire BBC j'ai parlé scandale financier de l'année c'est 000 qui Yo documentaire BBC scandale financier de l'année corruption 250 000 dollars agri trans contrat pétrolier et gazier Frank Timis Corporation judiciaire party international de yóbbu dossier court BP Cosmos tire les pastos en parfaite avec les bad boss, association de malfaiteurs, le maquillage sale, le Sénégal au cœur. Corruption scandale, mouru scandale, mood ma mort, du doole le lay naan Allo, sale, Sall pétrole gaz Macky Sall pétrole gaz. Aliou Sall pétrole gaz sale, sale. Yerusalem'e görünsün yemanı Samis tübün duvay mınatanı Dokümantör BBC yebari Eskandal finansiye Delali Ansal Magisal Ansal Görünsün yemanı Ansal Magisal Ansal Görünsün yemanı Riyum bandi Dole fımın tıkı Tarafa yamba El sangarın gısıkı Gordi geni gırn Libertin lingi bıkı Yanki doha gole Kapı imami tıkı élection temps bi yëpp a lëj te ñu gëstu gëtt klaate mille millions de mille sabar des na la jal jalaaloo jalle say mbokk jàll laajal ma say transhumant lu wënq di dox noor nal ma Mamour Diallo sàcc du sal petrol, gas. Alou, sal petrol, gas. Make it sale, sale. Yeah, I sal Solomon, I don't see your money. Cause I'm mixed to the why I'm not a day. Look at BBC, J my day. Let's go knock in on yeah. Alou, sale, make it sale. Alou, sale, don't see your money. Alou, sal. make it sale. Alou, sale, don't see your money.

da ko tëddee ginnaaw bu njëkk bi da ko tëddee kanam deuxième bi mu tëddee ko ginnaaw donc moom tam am na deux El Hadj Maître El Hadj Diouf deuxième tentative de viol ñu ñëw ci moom moom ñëwaat na ayca bismillah deuxième tentative de viol de Maître El Hadj Diouf Maître mu ñëwati nag lu ne mu indi ko sama jabar la jox lii sama jabar kii sawaay moo la jox lii kii la jox lii xale ya la jox lii indi indaale sërite bu bëri donc encore mu indi ay cadeau jox naxante jege xam nga bu ngui jox cadeau yi jege bu ko laal mu aji saat arrière mu ñëwaat encore nak waaye yow dafa nga may daw yow mu sa tonto nag ton maître s'il te plaît japp ci rek xam nga dem di di expliquer maître commencé bëgg accélérer encore commencé mel ni gaynde ci kawam tante tante tante tante tante aji sar, bagn aji sar bagn léegi nag ci biir audio bi Adji Sarr mi ngi naan maam seen maam seen naan ko mënoo ko woon bàyyi sax mënoo ko woon raayal wala nga jéem ko euh, def ko ay genre yu sew sewaan daal pour mu doyee parce que yow tamit yow mu ne ko ak gémmiñam gu mbeppe boobu ak gémmiñam bu mbeppe Adji Sarr ne ko dama ko séexlu ak gémmiñam bu mbeppe boobu dama ko séexlu ak gémmiñam bu mbeppe boobu loolu la ko wax parce que maam mi ngi ko mënoo may ay yu sew tuuti nga xam ne moom mu daanu sax nga gi mënoo ko mukk dama ko seexlu ak gémmiñam bu mbeppe bobu borom silib bu wex bi am poos bi ci karam mam sen nako xam nga mam sen bandi la ba am maam seen na ko ko may tuuti ray ak ay affaire yi sew reen rek munu ko fóon ak bu mbeppe bobu ak bu mbeppe bobu parce que mam daf nako ko ko may ay sew ray ak fóon munu ko fóon ak gu mbeppe bobu Adji Sarr ko wax loolu ak gémmiñu gu Mbappé boobu yu kii moom seexlu naa ko seexlu naa ko yow maam ki boo gisee silibam bu weex boobu dand bi hmm? moom rek lay indi ak gémmiñu gu Mbappé boobu ak biiram bi ay maam kooku biiram bi daa mel ni ku seex ñee ku ëmb ñaari seex mu ne ay maam kooku de biiram bi maître biiram bi daa mel ni ku ëmb ñaari seex waaw après ñu kon ne waxtaan parce que moom ne maam nee ko mënoo ko raay rek fóon ko mënoo ko fóon ak gémmiñu gu mbappe boobu ak silibam boobu dand boobu noonu dinaa ko raay di ko fóon dama ko seexlu loolu la wax donc <laughs> loolu la ne ci ci El Hadj la audio baa ngi nii El Hadj ne prrr ñu bombardé El Hadj boo ne prrr instant yi autorité yi laa téye nii téye téye boxoñ boxoñ ñi caaf kenn du yëngu ku yëngu dee ku yëngu dee ah, ngi fii donc deuxième fois deuxième fois bi nga xam ni maître El Hadj Diouf na tànte mu cóol mu dem ñeneen nag ñii ci saal ba di waxtaan di xaaxataay di seetaan non man El Hadj bu Diouf bu ñëwee day fekk gars yi ñoom Viviane nekk ci saal bi di seetaan télé di waxtaan ci lu ñëwee ci saal bi ci ci néegam néegu aji saar mel ni kuy waxtaan nee na xuuxaar rek El Hadj Diouf futteeku ba dese benn silibam boobu am mbabal 45 bi am benn poos bi ci kanam commencé jege bugg a raay bugg a fóon soxna sa daw wax na ko fii ne gémmiñu mbeppe boobu du ko fóon ba pare voilà quoi wax naa leen mais nag waxu ko xeeñ xeeñ moom bugaan lañ wax moom mooy xeeñ niw niw mooy soow bi soow lu nekk ci kaw mooy niw bugaan moom nee na Adji Sarr nee na bugaan niw lay xeej ak diisaayam ba ak dooleem ba pour tëdd sama dënd bi fe ma audio yaa ngi fi bu bugaan waxee rek man du ma tontonte benn golow bugaan bugaan gay dali wax waxal direct muy nit may nit buy wax may dóor buy wax bu yëkkatee gémmiñam rek ma fëgg metti looy def ni ma ne ko bul ma ne ma ne ma tonton donc donc ñu waxtaan seen ancien far yi continuer génn ci maître El Hadj Diouf seen euh, ancien far yeeg yooyu waaw voilà léegi nag léegi nag loolu lépp bu mu amee xam nga aji expliqué woon na interview bi ak leeral waxoon na ko ci moment boobu noonu ni ñu monté seen seen film boobu yëpp di wax loo aji saar déglu leen nag audio bii nii bi nga xam ni maam seen wane nañu euh, interview leeral bi maam seen bu mu seetaanee interview bi li mu wax Adji Sarr parce que Adji saar waxoon na ko ko moom rek a yëgoon ni Adji saar day def interview ak seen gang bi léegi nag maam seen toog na kër ga gis interview bi comme ni ngeen ko seetaanee man seetaanu ma ko quand mais yéen seetaan ngeen ko gis lépp interview bi maam seen nag mu koy expliqué bu mu gisee film film Adji saar bi euh, maître euh, Diouf Viviane bi doon wax loo Adji Sarr et tout ñu déglu. waaw fii moom jibril wax la wala la ko def lu mu ko tànn lu ma ko tàmm defal rek xam nga macc ween yi matt cus yi mu daanu ma jël loxo yi boxam yooyu lay expliqué moom du ma sonnal mu yëkkati xaalis bëri may ma <laughs> ñu reetaan ñoom ñaar moo nekk nii non xale bi kay doy na waar xale bi yéeme na fett jibril waar daa jaar na fa daanu fa benn daanu waaw bo mu bombal ko kooyi mu jibril waar daanu mu dem waaw matu sax cinq minutes waaw boxam boxam la wax boxamal ko kooy yi cinq minutes mu dem day ñëw nga toog ci kawam macc cuus yi màtt ko boxam boxam mu daanu mu dem jibril waar waaw mu ne ko mbaa gaañoo ko xaaral audio bi ma avancé ko ba ci bi laay avancé ci Jibril Waar la nekk nii quoi léegi expliqué naa la ko bugguma répété waa cuusi da ngay ak sa bëñ yi màtt yi sew mais waaw moom du ma sonnal du ma sonnal ñu départ waaw mooy deuxième tentative retour de maître El la Diouf le prédateur tey maître buy ñëw maître ñëw jënd lépp sama jabaral la jox lii sama kii moo la jox lii xale ya la jox lii kado yi kado yi dul jeex waaw commencé jege bugg a raay bu ki aji daw ci la wax ay waxu gémmiñ gu mbéppeek yooyu waaw deuxième tentative de maître El Hadj Diouf deuxième tentative de viol hmm. waaw fóon ak gémmiñam gu mbappe wala mooy Mbappé gars yi man de do fi mi ngi mu ne ko fóon man seen mënoon ko ko fóon ray ko rek fóon ray ko mu dem comme de la sonne mu ne ko fóon ak gemiñum ko Mbappé bi loy Mbappé xalé jigéni xana di ngeen mako wax après ak biiram bi biiram bu reem bobu yi boo bu ko tegee sama kaw duma nokki ñom ñaar ñu waxtaan avancé waxul xeeñaay mom xeeñaay waxuko hmm. Mbappé gémmiñ gu Mbappé gémmiñ gu Mbappé ok Mbappé gémmiñ gu Mbappé Mbappé film bi yëpp ngeen di xam ndànk rek dal rek après audio yëpp day ñëw ñoom laay ñoom laa téye nii instant yi dama leen téye dama leen am fu ma jàpp ci ñoom te ñoom ñi ngi déglu dafa am lu ma téye mënuma ñëw rek dóor boobaa do def ñom lay té dama leen di xaar ñom ñëpp ma ngi té ñom xam nañ ñom xam nañ luñ def yalla xam nañ luñ def man xam na lu def té audio yaa ngi fi mom lay déglu di leen wax ñom dama leen té ni dama leen di chanter lo dama leen té nag kañ di leen xaar kenn du wax ci ñimay wax ni kenn do dégg kenn ku yey yàbbi ba may wax li yëpp may ay audio teg am ñu genn di golo gololu non ki fi yow ka yow bëggaan yow bëggaan ñi di dof doflu bukan mako ko ni ni nii keng keng keng keng keng bo xam mënul nokki buy wax di dee buy wax di dee la la wax te duma ci sax werante ciow li bëri ci dëkk bi wax ji bari na et tout mam ñëwaat kon mam ñëwaat na mam avant euh, nga xamni ne ba ñu saraan interview bi mam jaarat na fa une deuxième fois seeti ji aji sar seeti ji aji saar ñu yendu wa yendu normal kurti kurti wax seeni wax yi sew togg seen togg comme d'habitude fecc seen fecc def seen sinap hmm. def seen sinap def seen affaire foor seen foor dal ñom ñaar mars man set ci waat ko deux fois fof ñu ñu waxtaan seen waxtaan ay nga leen di aimé live bi parce que ñom instant yi dañ ña nga ca quoi ñom tam ñi ngi ci da aimé live vie, vous aimé live du dem parce que vous avez aimé vie, rek ñom dañuy parce que instant yi De toute façon style bi am na parce que du caaxaan 14 morts, 14 doomu ñoo ak doomu doomu nday temps plus de 600 blessés graves xoolal ay caaxaan ndekete ay violeur ay tëddkat yu jigéen ay affaire bi day leer bakkan laa ci teg bakkan bakkan laa ci teg waaw ñu waxtaan teg seen ji waaye tey tey moom togg ngéwél si togg na ngéwél ñu toog waxtaan seen waxtaan loolu maam mi ngi kër ga ñu ngi ñu ngi bëggee ñoom ñaar seet si na ko léegi nag ñoom wax nañu waxu Sonko mi ngi nii avant sonk deuxième song maître El Hadji bi ñoom ñaar waxtaan nañ waxtaan Sonko ñi ngi doog a wax waxu Sonko mu woo maam ne ko hmm. rek audio bii nag maam dafa seetaan aji rek envoyé woo maam euh, envoyé message aji sar audio parce que li lepp audio la nak du ay appel téléphonique audio whatsapp mu ko ay way aji ya muno dul, aji sar nako ah def mu ko li nga def ci télé bi la ilaha illallah moy moy interview bi la kay raconter interview leral bi ay way aji ya muno dul, lu nga wax ci euh, euh, leral ya, ci télé bi ya ko tay sa interview bi la setan ngay fen rek ya amuna fen mu ne ko dedet duma ci dara musuma wax barki Baye ñes musuma wax ak sonku musuma tek loxo musul wax ak man na ngeen def ma ngi fi rek ñun ñëpp nuyu bu ci kër gi na ngeen def ma ngi fi ñun nuyu musuma wax waxu Sonko mune ma lepp dañ mako wax loo affaireu tak dama lay tak lepp ñom ela djouf ak ñom vivian ñomako wax lo mi ngi ni day tay la ilaha illallah wa aji aj aji li nga wax fofu yëpp dañ la ko wax lo dara du ci deug ay na dara du ci deug dara du ci deug ñomako wax lo te man ñëw naa trois heures de temps avant ñi waxtaan ak man lima wara wax avant journaliste yi di ñew nee na maa fa jiitu journaliste yi la wax de fii audio bi maa fa jiitu journaliste yi ñëw naa trois heures de temps avant journaliste yi donc aji fekk fa journaliste nee na ñëw na El Hadj Diouf ko indi ko ci kër googu trois heures de temps avant journaliste yi audio baa ngi nii trois heures de temps avant journaliste yi ñoom ñëw aji moom indi nañ ko fa mu ànd ak Viviane Viviane réer ci kër ga donc foofu waxtaan nañ avant journaliste yi di ñëw mune ma ñom ñi ngi waxtaan nañ 3 heures de temps avant journaliste yi di ñew 3 heures de temps mune ko wa adje dama seetaan ci affaire yi dama gis ni boy wax di seug mune ko ay écouteur lañ ma takal mune ko adje dama seetaan ci affaire dama gis ni boy wax di seug lu xew mune ko ay écouteur lañ ma takal fil bi ci ginnaw lañ mako jaarale sama digg ginnaw gi la jaar ñu tak ko ñu tak ñu tak émetteur bi boîte bi ci ginnaaw nyumur ma muuru ñu muur ma ma muuru ajay wax de nee ma muuru ma muur sama bopp mu ne ko yow kan moo la doon wax ci biir écouteur bi maam seen di ko ne ko yow kan moo la doon wax ci biir écouteur bi mu ne mooy vivian Ndey Faatu Jum di rakk di sëru euh, mbàkke jum te mu ñuul def à la garçon rëy dijj di di gwin di lesbienne ndey faatu jum di coiffeuse kooku la moo ko doon wax ci ginnaaw lool lii waxtaan bi la nekk de Viviane ngeen naan ko Viviane moo ko doon wax waxal lii waxal lii waxal lii waxal lii aji saaray wax de audio bi nee na mu naan ma waxal lii waxal lii moom mooy wax may dégg di wax motax may seug ñu murbi, def mur bi pour neub casque yi wallahi lu dul deug du yag barke alcorane lu dul deug du yag yalla hi tay ñi buñ xamone yalla tay ñi buñ xamone ñu suñ borom subhanahu wa taala dinañ bayyi sen tiaxani dinañ bayyi sen fen yi dinañ bayyi sen sax sax sax ñu sax saxe doom adamay la ilaha illallah lu dul yalla nen la bàyyi leen fen bàyyi leen caaxaan bàyyi leen rey doomu wallahi alazim azim di ngeen ko layo fi ni fi bala ngeen di aja bismillah ojo aji sa. nee na lépp luñ ma lu ma wax dañ ma ko wax loo waxal lii waxal lii waxal lii dakay koy répété may wax di wax ak man ci écouteur bi bu ma kalee mu wax moo tax may benn bennal parce que damay déglu wax déglu mu wax ma ma wax ma dégluwaat mu wax ma ma wax moo tax may taxaw dégg Adji Sarr wax ci audio bi de trois heures avant journaliste yi lañ ma wax ba pare ñu me question may répété question may répété Non lañ formé trois heures de temps vous Viviane El dañ question ne ko waxal mu waxal encore casque boobu noonu dooru ko ko jaarale écouteur bi ci ginaaw ci bi encore mu koy répéter muy waxat mu koy répéter mi ngi sen la wax nak de may répéter di di rek ñu ma ma fil dañ ma takkal micro bi li may déggee comme benn ceinture waaw appareil bi am am émetteur bi nee na fil bi mi ngi jaar sama colonne vertébrale ma muur ak col bi sama bopp bi muuraale casque yi nee na ak yàkkamti woon mu jeex mu ne ko yaa mën a duur aji yow nga wax Sonko robbu bu jabaram bi dafa am eh, robbu bu rouge ah, mom mam sen ma wax de mu ne ko yaa aji yow nga wax Sonko jabaram bi eh, dafa yor robbu bu rouge mu ne ko du deug dañ mako wax lo lol lepp du deug waye nak mam bu dee rek la wax mak yow mam ne ko lan la mune buma bu yam ca salon ba tonton yu way ñëw yëpp ku ñëw ma maase la nga may ma xaalis ma dem sama yoon dañ ma doon may xaalis bu bëri laa doon yor dinaa ci yónnee dëkk ba danaa ci jënd sañse wala bu ñu daan dem marché toujours damay am ay dix mille francs pour boire mënoon naa yem ci loolu waaye lii lépp Seydi Mouhamed Mbaye ma ci dugal li yëpp Sidy ma ci dugal Sidy Mouhamed Mbaye waaye yàlla baax na maam na ko ah ah dëkk bi de moom léegi moom moom moom fu ne nii ña ngay wax rek ko donc euh, jiitle boobu ñuy wax bu ruus ak jabara loolu noonu Viviane maanaam Ndeye faatu jum ak maître El Hadj Dioum ñoo ko créé wax na ko pour mu wax ni Euh, euh, jiitlaay bu xonk boobu noonu jabaru ñaareelu jabaru Ousmane Sonko tel tel tel loolu noonu mi ngi nii audio baa ngi nii nii ci samay nopp maa ngi leen koy liiral ñoom ñoo ko créé wax ko ko pour mu wax ko. attends attends rëcc na seen xaaral seen rëcc waaw nee na bu ma kalee mu wax parce que bëgguma rëcc dara film bi yëpp lay leer nee na muy répété di répété répété rek. waaw lii bon dama ko dama adhéré affaire fil bi hmm. Hmm. waaw nee na ma yàkkamte mu jeex de yow nga yow nga wax Sonko dafa ñëw di la nettali jabar bi robb bu ruus xaw ma mu ne ko loolu lépp du dëgg dañ ma wax loo ñoom ñoo ko wax loo loolu lépp du dëgg waaye nag maam bu dee dëgg rek la wax maag yow mun ne ko bu ma yógoon yem ca salon ba tonton yu fay ñëw yëpp dama leen maase ñu dem seen yoon dañ ma daan may xaalis bu bari boobu xool xaalis ma doon indi rek daan naa ci jënd sañse waa di dem ñoom lañ doon demee marché ma ci yor ay pouvoir dix mille francs ma koy yónnee samay parent waaye li lepp siiri moom ko ci dugal li lepp siiree ma ci duggal waaye yalla baxna mu ne ah ah bi de léegi-léegi mom coow li gën na bari aji mu ne ko ah bon mu ne ko liñ ma dig de mom buñ mako joxe mom wa dina len laaj sax pour man ak yow aji nako ah yàlla baax na waaye liñ ma dig de buñ ma ko joxee dinaa leen laajaale sax pour man ak yow mu génn fii yëpp dem waaye xam naa dëkk bi xaw ma fi ñëwaatee waaw maam di dalal xelam waaw maam di dalal xelam nag ah ñoom ñoo ko wax dinañ ko def dinañ ko def dinañ ko def ñuy waxtaan détaillé wax seen wax muné ko limay wax yëpp aji sar ne ko limay wax yëpp xaw ci interview bo xawma ci lu géej di rir lépp ñoo mëna waxal li waxal li waxal li sol rob borom rob bu xonk bi loolu lépp xawma ko ay bu néewal da lay netali dama xulok sama jabar mu mer dem sol sol rob bu rouge rob bu xonk bu sexy ñëw nan yo la waron tak sër ko li amna fi la ilaha illallah mais man yow lii mosuma ko yëg wópp oh! allahu akbar eh, eh. man lu may tëñëx tëñëx yëpp yëguma lii am na fi waay waay waay ma dégluwaat lii waay ah, gars yi ñoo bii moom ñoo koy déggandoo man audio yi dafa xaw laa kon Adji Sarr dafa wax yooyu ay ay affaire robe bu rouge ak jabaru Ousmane Sonko bu mer xaaral ma déglu non way way man rëcc ya affaire yi waaw non non non man yàq naa affaire yi ya laal na luma warta laal sax oh, oh audio yi ñoo bëri parce que bu ma di di créer dara la ma bëgg lépp di ko dégg fii di leen wax quoi audio dañoo bëri. mais audio yi instant yi lu leen tere génn rek mooy ñooñu ma waxal noonu kenn yëy yàbbi kenn yëy rek kenn ne haa haa rek haa prib rek ma dóor ñooñu laay ñooñu laay waxal en attendant di ngeen ci jot nag incha allah bu ma leen ko waxee rek gëm leen ma mais audio yi ñoom xam nañ lu ñu def xam nañ li may wax buñ nee prib prib rek santuma leen dara prib rek ma dóor mu leer effacé wu ma dara yëpp a ngi mi ngi ci yii mi am na ñu ngi am nañu ma ko jox jox naa ko trois trois waaw troisième sodomie bi fi mi ngi fi dama laal mom la laal sax tayuma ko trois ali ala El Hadj Diouf la mu ngi summee tubéy ji dafa bari audio yi dama nek ci leeral bi bu mi fenn si problème bi dafa rëy xanaa ne dañ ci defal ay live live live live live mais bon grave legui dama lu wax lu mooy troisième euh, troisième tentative troisième tentative de euh, de de euh, de de mettre El Hadj Diouf def na deux mais trois tentatives la def troisième tentative aussi même chose la def toogaat na lu yag tuuti mu ñëwaat chasser le naturel il revient au galop indiwaat ay cadeau encore diggante boobu nag mi woo mi ngi woo euh, moom Adji Sarr di di liggéey ci xelam di liggéey ci xelu Adji saar di ko jéema a dox ci maanaam et tout ça pour mun a bu ñëwaatee troisième affaire bi mun a yomb mu mu tarxiis egg ci biir ba mu indaatee cadeau yi yëpp encore bi kii la ko jox troisième tentative ba mu def tam ba mu ko defaatee Adji Sarr dafa dawaat donc vraiment ñu nangul maître ne def na trois tentatives mais benn sottiwu ci kooku maître la. Le moy 3 troisième bi nañ dem ci parce que ñom seen waxtaan dañuy wax li wax li wax li wax li lepp seen ñom ñaar ay doomu dañuy ancien Sogabek en face ancien Sogabek ñoo dekkone ci ñom le, lepp tambalé donc euh, euh, dañuy wax des fois ñu pour nga c'est difficile wax waxu tabaski wax waxu tabaski waxu waaw ah, fii fii ñu Françoise Hélène Gaye la ñuy wax fii foofu egguma fa waaw fii laa tolloon donc waaw fii fii la mi ngi nii gis naa ko mi ngi nii audio baa ngi nii baal leen ma waaw hmm. fii laa toll bu may si leeral bi maam bu ma gisee euh, kii bi euh, maam bu ma gisee bu mu gisee interview leeral bi ci tele bi maam woo ko ne ko yaa mën a duul aj yow aji yu ma gis naa li nga fa def ci la ko expliqué ne lépp lépp lépp du ci dara dañ ko ko wax waxloo ba ci ay ay rob bu bu xonk boobu noonu ñaareelu jabaru Ousmane Sonko mooy ñëw xoomalan won ko ko mu merok Ousmane Sonko après Ousmane Sonko moom mu daw indi euh, rob bu xonk xawma jiitlaay bu xonk pour jéem a charmer Ousmane Sonko ne ko mais man yow laa bëgg loolu lépp seen fen la ñoom ñoom Viviane maanaam Ndeye Fatou Dioum ak maître El Hadj Diouf ñoom ñë jaan Diagne seen fen la lépp lépp ay kàcc la audio yaa ngi fi wax dee wax dee képp ku nekk ci njiit nguur wax dee wax inter mu dugg wax inter dugg rek wax mu dugg na bagage dugg rek mi ngi nii de ayca ayca ñu départ ñu déglu audio yi lima moy moom mooy bu mu ko bu ma bu nga def añam dal fa kon bi la audio baa ngi audio aji sa bi la setan li nga def ci télé bi nek ci net bi yëpp partout ngay wax di wax rek ay wax ay robbu bu rouge ak aji mu ne ko déedéet dañ mako wax lo dañ ma wax ma wax musuma wax parce que musuma wax Ousmane Sonko musul wax ak man na ngeen def sawa mu ñew robbu bu xawma sax robbu bu billahi euh, mam robbu rob sax xaw ko ay dang ay dama lay takk mu ne ko aji li nga wax fofu yeb dañ la ko lo ay takk ak ay bu ma digge ay robbu sama jabaram ak ay man yow la bëgg a ak aji ne dara du ci lepp ay fan la. daara du ci dëgg ñoo ma ko wax loo te man ñëw naa toog naa trois heures de temps avant journaliste yi di ñëw maa ngi ñoom trois heures de temps waaye yow aji dama gis ni booy wax dama doon seetaan sa affaire bi ci télé bi dama gis booy wax di sëgg mu ne ay écouteurs lañ ma tegal jaar fiir bi jaar sama digg ginnaaw ñëw ci sama nopp yi ñu muural ma ko ñu takk boîte bi ci ginnaaw comme ceinture comme ceinture ci ceinture ma muuru teg ñaari écouteurs yi dugal sama nopp muuru mu ne kan ma doon wax ci biir écouteur bi mooy mu ne ko Viviane Viviane nday faatu jum waxal lii waxal lii waxal lii maître taxaw ci wetam mu ne dama ci xam dara dañ ma ne waxal lii waxal lii ma wax lii Je wax ak man ci ci ci ci yi may may répété moo tax bu waxee ma eggali bu ma lay wax trois heures de temps avant journaliste préparé nañ Je bu ma kalee rek mu wax ma wax mu répéter répété na mais jàppul lépp donc bu kalee rek ci lim doon wax rek euh, Viviane day nekk mu wax waaw euh, fil bi lay wax dañ ma takkal micro bi hmm. waaw dafa mel benn ceinture la takk am appareil bi émetteur bi et tout ma muur ak kol bi waaw mu muur sama bopp bi muuraale casque yi dama yàkkamti woon mu jeex yaa mën a duur yow ngi wax naan Sonko xaw ma jabaram benn kii bi robb bu ruus bu mu soloon ñëw mer di nettali jabar ji mu ne ko loolu lépp du dëgg ñoo ko wax loo loolu lépp du dëgg waaye nag maam bu dee dëgg rek la ñuy wax maag yow maam ne ko lan la mu ne ko bu ma yëwoon yem ca salon ba tonton yu ma ñëw ñëw ma maasa la ñu may may xaalis ma dem xaalis bu xoola xaalis bu ma doon indi rek ñi ànd doon naa ci yónnee dëkk ba ñu dem marché togg lu ñu neex jënd lu ñu neex togg danaa ci jënd sañse dama doon am dix mille francs pourvoir par jour mun naa yem ci loolu waaye lii lépp siiree ma ci dugal lii lépp siiree ma ci dugal waaye yàlla baax na lii yëpp dama koy répété parce que man sam dafa bees ci man audio yi dañoo bari bari bari bari bari bari bari audio yëpp audio la attention lii lépp ay audio la xoola lii lépp ay audio la lépp ay audio la jé dañu bari té man tamit des damay day bess ci man ni numa <laughs> len expliquer ni day bees ci man li bu moko ko dugaloon sama bopp de faatu fen yi tooy yi bu moko ko dugaloon sama bopp bi damay dee man gu metti gi bañu ray doomu adamay man sa xaju sama bop nit kessa la damay déglu di wax seen audio di wax mu ne ko dëkk bi de coow li maam na dëkk bi de li gën bari eh, aji sax rek ah bon liñ ma dig dem moom buñ ma ko joxee maam dinaa laajte sax pour man ak yow génn fi yëpp dem waaye man dëkk bi xaw ma nu fi ñëwaatee maam di daal xelam non dinañ sotti nañ ko def dinañ ko def liñ la dig yëpp dinañ ko def dinañ ko def ñuy waxtaan ñuy détaillé seen waxtaan mu ne ko maam lu may wax yëpp xaw ma lu géej gi di riir lepp ñoo mëna waxal li waxal li waxal li waxal robbu bu xonku bi bu mu sol waaw ay bu ñëwee da lay dama xulok sama jabar mu mer dem sol ben robbu bu rouge bu xonku bu sexy ñëw mais mané ko mu ma yow la waron tak sax bu ma la xam lepp dañ mako wax lo ñu avancer di ñi ngi waxtaan ni pa pa pa mais maam nag baat bi neex na nag maam de baat bi euh, comme xeeru Touba baat bi neex na de xeeru <laughs> ay maam maam moom xaw ma nu mu war a mel baat bi baat bi may dégg moom euh, dama ragal ni mun na dog koor ah xanaa ci kii lay liggéey ci euh, appel téléphonique yeeg yooyu ci appel yi agence de kii des appels je sais pas maam bi neex na de maam maam mii moom xam naa après dinañ ko rëbbi ña ngay waxtaan ña ngay waxtaan ah El ñëw na El ñëw na troisième tentative troisième attaque de retour le retour du lion le prédateur maître El Hadj Diouf ñëwaat na indi indi bii nag dafa indaale ay fruits hmm. nee na mu indi ay fruits nee na nee na El Hadj ma toj naa télé bi. nee na El bu mu ñëwaatee troisième tentative nee na mu indaale fruit indi ay cadeau ne ma toj ñaa tele nee na aji toj nga tele bi aji rajaxe nga tele bi toj naa ko nee na ñëpp wax ñëpp a wax El Hadj may wax de mooy wax ak aji aji moo koy expliqué maam seen di ko wax la ko El bu mu ñëwaatee troisième tentative bi lu mu indaale fruit la indaale cadeau ba pare nag di ko jay naa ko toj nga tele bi rajaxe nga tele bi dëkk bi yëpp ngi wax. ba nee naa leen nag interview bi dañ ko def téeku lu yàgg dañoo def interview ak leeral téeku lu yàgg ay fenkat yu mag a ngi noonu leeral il faut ngeen répertorier fan la fe fan la féetee ñooñu bokk nañ ci lépp lu yàq leeral il doit pas waratuñ nekkati waratuñ nekk waratuñ exister ci leeral attention defuñu ko tey génne ko suba toog nañ lu yàgg hmm. téye nañ ko lu yàgg donc El Hadj nag ci la ñëwee indi fruits indi ay bagages ay affaires yooyu noonu naan ko teg nga télé bi non rajaxee ko ko dëkk bi yëpp a nga coow dëkk bi yëpp nga coow léegi nag te commencé ko jege encore la mu doon def troisième tentative commencé ko jege waa bu ñaatee neen mu teg ko mu teg ko loxo mu teg ko loxo fii fii mel ni ku wax ak moom ah naan ko aji yow temps yaa ngi defaru de temps yi moom ah temps yi moom yaay star yaay staru Ndakaaru waaw yaay staaru ndakaaru waaw rak mu commencé ko téye aji commencé bugg a daw mu ne ko bul tiit El Hadj ne aji saar bul tiit bul tiit fit bi day rëf rëfi ba mu téye aji aji saar di commencé daw mu ne ko bul tiit fit bi yëpp di rëf mu ne ko maam sama fit bi yëpp mu téye sama mbagg bi sama fit bi yëpp di rëf mu naan ma bul tiit bul tiit mu ne ko kon aji yow li ma doon wax noonu sa affaire boobu nag danga foo toog muy rëf-rëfi sa fit di rëf-rëfi di di di di di tëb euh, loolu ba léegi mi mu ne ko waa man kay ba léegi loolu mi ngi may dal mais El Hadj ma téye nii sama kii bi bëgg a bës bëgg maa bës ci kawam sama fit bi di rëf-rëfi bu ma jëlee garab yi guddi sax daf ma koy def waaw boobu ba léegi ñu dem. donc légui nak elle a Diouf tante waat na ne bu mu tante tamit Adji sar daw mu bu ko accéléré bu ko forcé Adji sar daw légui nak mu troisième tentative mettre El Diouf def ci Adji sar pour teudé ko mais jotul encore wa trois tentatives donc de viol mettre Me El Hadj Diouf jéem ci kaw Adji sar mais wut sincèrement kenn du wax kenn duñ sosal kenn duñ yokal kenn donc wut légui nak le nak mom sar un moment donné mu commencé sonn fofu parce que Mamour Diallo dañuy dem ci troisième troisième Mamour Diallo après ñu ci parce que Mamour Diallo après bu trois tentatives surtout le retour de Mamour Diallo pour une troisième fois le nak Mamour Diallo ñu dem donc Mamour Diallo bu mu encore. moom mooy Adji Sarr di expliqué nee na Mamour Diallo bii nii nag fekk na moom mu xaw a tane parce que gélunes yi mu doon jël ak antibiotiques yeeg yooyu nee na Mamour tëddee na ko kanam ak ginnaaw kanam sodomi ak euh, kanam Mamour Diallo tëddee na ko fa kanam ak ginnaaw mooy troisième euh, euh, laal bi nga xam ne Mamour Diallo tëddee na Adji saar benn bi da ko tëddee ci kanam deuxième bi mu tëddee ko ci ginnaaw troisième bi mu tëddee ko kanam ak ginnaaw kanam ak ginnaaw aji saaray wax nii nee na Mamour jàll tëddee ko kanam ak ginnaaw ay ca waaw non kii kii la waaw Françoise la ñëw foofu foofu lay wax audio yi waaw waaw si El Hadj Diouf waaw El Hadj Diouf nee na El Hadj ngay yuut

mo tu ni waaw di ko bës ci boppam la maître ñëw def tentative waaw loolu nag commencé perturber nag loolu moo troisième tentative de viol bi nga xam ne El Diouf jëm na ko ci kaw loolu moo commencé carrément troisième tentative elle a Diouf mode dégénéré le a dit ça commencé am ay perturbation ci bopp bi ci cerveau bi maître melni gaynde ci kawam bu ko laal diko agresser agressé Adji Sarr mooy wax mi koy netali euh, mam sen diko dima agresser mu agressé tek ko sama wéni di bës di yout di yout mam bo gisee mi nga yout di lox mu ko maître bàyyi ma maître bàyyi ma maître bàyyi ma mu ne ko dama wax tonton dama wax tonton rek dama wax tonton dama wax tonton nee dama laa bëgg nee na maître di yuut ña commencé téye ko nii di mel ni koy lox nan ko dama laa bëgg dama laa bëgg pour tëddee ko waaw procès moom di nga gañe moom mooy bu ko bëggee tëddee nan ko procès moom di nga gañe moom procès téye ko nii di yuut sonn di di lox nanko nanko nan nanko mu nanko meter maître bàyyi ma maître nanko ma maître bàyyi ma mu nanko ko non dem wax tonton dem wax tonton nanko naan ko di nga gañe di nga gañe bi mom ay million nga ci am bi mom ay million nga ci am lo aji sar nena ma bagn agression sexuelle mu nako bi mom moom di ay million nga ci am projet bi di nga ko gàñee aji nee ma bagn donc après nak El Hadj Diouf

Naboucha Naboucha Nord Foire troisième tentative bi Len naa leen bu El Hadj Diouf foofu moo perturbé boppu à Sarr léegi nag commence à dire, di am envie daw wala xaru wala parce que commencé na sonn foofu noonu léegi Mamour Diallo day ñëw ci diggante boobu noonu ci le Mamour Diallo ñëwee bu El Diouf ay quelques jours après Mamour Diallo ñëw fekkaat fa ñoom Viviane et tout Viviane raxasal ko terrain bi mu rafet dóor Adji Sarr ci kanam ak ci ginnaaw sa kanam la ko njëkk a dóor eggali ko ci ginnaaw Mamour jàllo troisième laal bu ko bu bu jàllo laal Adji Sarr après bu trois mu sibir na bu leen fàtte jigéen la rek sibir na laalu Bougane Gueye Dany sibir na premier euh, laalu Mamour jàllo ci kanam deuxième laalu Mamour jàllo ci ginnaaw premier tentative de viol bu Maître El Diouf deuxième tentative de viol mettre El Hadji Diouf troisième tentative de viol mettre El Hadji Diouf bu Faté fàtte Djibril Waar tamit jaar na fa ñu mettel ko ñu mettel ko weenam yi boxamal ko bagaasam yi mu daanu donc loolu lépp boo ko presque 8 légui après Mamour Diallo ñëwaat muy 9 Mamour Diallo bu mu ñëwaaté encore comme def nañ ko objet sexuel Mamour Diallo bu mu ñëwaaté Viviane raxas affaire yi defar ko ba mu rafet Mamour Diallo dugg dóor kanam dóor ginnaaw dem waaw loolu yëpp Adji Sarr moo koy wax léegi nag bon maam seen laaj Adji Sarr ne ko ba xam Naboucha yaa ngi koy dégg xam naa Nabou la tuuti rek Naboucha yaa ngi koy dégg mu ne ko non temps yi moom gëj naa ko dégg foofu la ñuy préparé ñoom ñaar pour éva évasion wu Adji Sarr ci prison boobu ñu koy tëddee léegi. ci lako Nabusha, nabusha Nabusha mungkin ko nabusha mo gëj naa ko dégg muné ko donc doo sax nak non nga ko bayyi nonu day dem diko ko nabusha Naboucha waram baax la mo dëkk Nord Foire mom tam dafa luwe ci ci gàngooru caga joju la bok hmm. muné ko fan yele dal dajé won nañ ci ben stand tok ni di waxtaan affaire yoy hmm. C'est notre intéressant Nous continuons. donc après aji toog fa nekk ci net bi tabaski et tout ça François Hélène Gaye nag la Maman, maman maman tata trop François Hélène Gaye la aji saar di mi François Hélène Gaye baax trop mais day bàyyi ba nga tëdd mu lay woo ay vidéo whatsapp vidéo di la enquête comme police waaw yenn saa yi ma ko jël damay bàyyi ba mu sonné ba coupé waaw bu bu ma yeewoo bu ma waatee ma ne ko garab yi ma jëloon la garabu nelaw waaw daf ma sonal daf may woo ay guddi guddi ay guddi waaw di ma woo vidéo whatsapp man dama koy bàyyi noonu muy sonné ba coupé ndax dafa lakkale day da lay wax di la enquête comme police Françoise Hélène Gaye lay wax ñu waxtaan seen waxtaan côté tabaski côté tabaski la mu ne ko maam foofu nag la ko Françoise Hélène Gaye yónnee bijou yooyu muy wax or la mu muy muy muy gërëm Françoise Hélène Gaye ne ko yii maam bijou yii Françoise Hélène Gaye yónnee ma laay sama tataa bijou or yi tak, bobu tabaski mi ngi jogo jot mi ngi jot mune bijou tout en or mam la la la France sama tata bijou tout en or la ma yónnee Amérique tout en or ñawal nañ ma moy tabaski bi passé dawma salon sax ndaw si lañ indi fi mom moma defal sama bopp bi ba rafet bam bax ki kay ak lepp keur ga lañ ko indi mu defal ko ko ngor pour mun a sarap xaw ma sarap sap xaw ma affaire jigéen yooyu koy wax daal sarap xaw ma sarap xaw sap xaw ma lan seen waxtaani jigéen yooyu ci lañ nekk nii fête bi nag passé tabaski nañ donc mu dóor chaîne kii chaîne biling biling ya ko euh, tataam bi muy wax naan mooy française Hélène Gaye yónnee mu naan mu naan maam tout en noor yuy tàkk xoolal moom la soloon def ko snap di leen ko won yooyu noonu et <laughs> léegi tabas tabaski la woon loolu tabaski la woon ñuy waxtaan di waxtaan ñu ngi waxtaan de ay 4 cinq jours ña waxtaan rek de ñu ne nii ma tara xëy rek mooy ñoom ñooy waxtaan te waxtaan du am solo ay eh, maam yow lii maam lii mu ne ko maam mune ko yey mam billaay sama tata bi moy say say bobu tok nañ ay après tabaski tok nañ ay ay presque 2 semaines 3 semaines mune ko mam billaay sama tata bi moy say say nu nek ci internet bi yeb di kurti kurti di wone di wax nan ma photo wul nga wu defal snap yónnee mako ko yeb aji sar doon def manam françois elen gay moko sante sant mi ngi nii audio yaangi ni yang elen gay ngi may déglu la min rek na wax na wax ojo baa ngi nii ba mu naan euh, français Hélène Gueye bu ko yónnee chaîne ya ñi dem nee na mu naan ma fotowul defal vidéo yooyu yëpp français Hélène Gueye di ma ko wax mu ngi ko wax maam de sarape ko def photo ñi naan ma rafet na ñi naan ñëpp di ma tagg ne maam daal gis nga fu ma summee woon sama chaîne ba biis ya damaa ñëw fekk biis yépp xomaat xomaat mu ne mu ne maam gis nga biis yooyu ma takkoon fu ma ko summi woon fu ma ko tegoon ba mu ñëwee damaa fekk biis yëpp xomaat furi ñëpp ñuul xomaat ñuul mu ne ndakate yooyu maam du or plaqué la sama maam sama sama tata moo saay-saay tata bi moom mooy Françoise Hélène Gaye moom Adji Sarr mooy wax ak copinam bii di maam seen naan ko sama tata bee saay-saay ndekete biis yu ma yëpp fu ma ko bu ma ko summee ma ko tegoon ba yëpp xomaat ñuul ndekete dara du ci or sama tata moo say ya <laughs> saay tey yow say say ay say say ngou ko de ay violeur ay fenkat ay tria tey rek nga de yow aji sar gisoo ko dara togal rek sama tata bi moy bandi mam ne ko du deug mu ne ko mam ne ko do du deug kay mu ne ko mam bàyyil ba nga ñëwaat yow kay bo ñëwaatee set sama di nga ko gisal sa bop seen yaangi ni nii ma teg buuseegul fi bo ñëwee dina la ko won nga gisal ko sa bët mi ngi nee ma teg rek maam dajjeeku maama ngay dajjeeku maama ngay dajjeeku te daf may lakkal téléphone di ma woo rek di ko di ma poser question comme policier waaw yooyu yëpp nag moom da ko doon def pour def ko ci ay live am Françoise Hélène Gaye yooyu yëpp mu doon def noonu xam na lépp Françoise Hélène Gaye xam ne ni lépp ay fen la da doon pousser Adji Sarr pour mu koy jox ay ay ki muy dajalé ay vidéo ay wooteeg ay yoy yépp pour mu ko def ci live am gaay naan xam yo. yoy yoy té jamono jooju Française Hélène gay musul gis Adji sar ci bët jamono joju ñew na ba sonu Sénégal dem musu ko tek bët dem na ba ben instant mu commencé saga gouvernement bi bu mujj bi kodas kodas de ah dañu bëgg jël Adji sar. teel ko sen bop ah ñun ñoom moom bëgguñu koo dindi ci la ci le gouvernement bi dawee woon ko Adji sar à la dernière minute à la dernière occasion mo tax pa bi na ma bul changer dara ci li ngay wax fils bul changer dara ci li ngay wax li ngay wax moy deug ba mu démé def def interview bobu nonu, Kodas di nan ay dañu nangu aji sar ci seeni loxo nangam ak nangam mo musul won gis aji sar léegi nak kan mo tax mu gis aji sar, mom moy Antoine ñak jom ba mu gisé ni François elen gay dafa ratax leen làmmiñ te daa bëri na yolé parce que xamna ni lepp ay fan la ci lañ ko forcer avant mo dem ñu gisé loko aji sar lolu moko gisé aji sar interview am video ba mu defoon ci ay codas japp len di saga di yak len ni xeme dañu tit ne ki comme xamna nu mu demee buñu sétané rek mu yak dil bi dil ba kalaté ci lañ ko jël nak yobbu ko ci Adji sar mu gis Adji sar mom la def video bobu ak photo première fois et dernière fois motax kilifa gi bu bul changer dara ci li balay wax ba bu ma lay jox rapport bi musul gis Adji sar li mo tax mu gis Adji sar moy codas bobu ci gay man dama tit ci ñi ñi ay dem lañ waru ñu dund ci kenn ci ñoom waru waru waru nokkeeti dëmm yii di ñoom ñëpp dinañ leen exterminer nañ dem rek waaw daf may laaj comme policier waaw naan la laajee rek waxal lii bu ñu la laajee rek waxal nii donc moom Françoise Hélène Gaye moo koy wax lii Adji Sarr war wax bu ko ko laajee bu ñu la laajee lii bu ñu laajee waxal laa te bu leen fàtte ne jamono jii Françoise Hélène Gaye da doon dóor pression Adji pour Adji Sarr génn def audio yónnee ko ko pour wax ni. Euh, moom MC Mbaye Baye Niass day doxaan Adji Sarr woo na Adji Sarr whatsapp audio yi ñi ngi ak moom fii nan ko génnal génnal nga wax defal audio même booy def audio sax nga yónnee ma ko nga ne MC doon doxaan lu muy wax yëpp du dëgg day fenn moom Française Hélène di ko wax Adji Sarr audio audio génnal nga ne nga lépp ay fen la du dëgg. waaw moom moom MC Niass da la doon doxaan da laa nopp nga bañ moo tax mu lay fenal génnal nga wax loolu Adji Sarr lànk lànk waaw neel audio boobu noonu Mamour Diallo loolu mosoo koo def de sa audio moom Françoise Hélène Gaye di ko wax Adji saar Adji Sarr lànk lànk lànk ba suñ jonn yàlla tey yorul audio yorul dara moom Françoise Hélène Gaye mi ngi fi audio yaa ngi fi ojo yu mu mujjee yónnee Adji Sarr di ko accélérer pour mu def pour mu def génn génn démentir démentir MC Niass euh, euh, sosal ko pour Adji Sarr sosal ko ne ne sëriñam da ko nopp bu ko takk Adji Sarr di ko dawloo ay fen yooyu noonu yëpp Françoise Hélène Gaye ma ngay accéléré Adji Sarr mais instant yi nag dañ ko coupé dinaa leen wax lu tax numéro Adji Sarr changé nañ ko changé nañ lépp numéro Adji Sarr gouvernement bi léegi moo jël Adji Sarr téye c'était de la merde ku mu neex ñëw ku mu neex tëddee ku mu neex dugg ku mu neex génn gouvernement bi nangu na Adji Sarr léegi téyel na ko boppam kenn jotutu ci kenn ci ñoom jotutu ci acca ñu dem moo tax jamono ji gi ngeen nuñ tëj lañ def amatuñ dara lu ñu wax dara lu ñu wax mënatuñ jot Adji Sarr c'est fini gouvernement ba Macky Sall dóor na loo xam ci taabal bi ne da ngeen ma bëgg a fontoo wala audio yi may dégg ak loolu moo tax ma ne la Macky Sall nalawtul yëg na audio yi ñu yor nalawtul de nangu na Adji Sarr téel na ko boppam léegi Macky Sall musul gis Adji Sarr nag donc Françoise Hélène xam ne lu xew lépp da doon manipuler Adji Sarr di wut buzz di ci lekkaale weccet

anal et, vaginal de Mamour Diallo. Troisième pénétration euh, par sodomie, anal et vaginal. Mamour Nyon. Tac. Nire. Oui, anal et vaginal. Mamour Diallo est ñëw Goudi. Gare Gare otom Yek. Fek ñaari garde bip ci suuf ak benn ci kaw ak PIMP euh, bi kii di macro bi di Viviane Ndeye Fatou Dioum Mamour Diallo ñëw gaare otoom yéeg toog waxtaan waxtaan muy waxtaan Viviane togg boppu Adji Sarr woon ko ni tey sawaatam day dóor ñu waxtaan waxtaan détail après moom Viviane ne Adji Sarr dem leen waxtaan ci biir néeg bi moom Viviane boobu ñoom ñëpp a ngi toogoon ci saal bi Mamour Diallo bu mu ñëwee toog waxtaan waxtaan moom Viviane Ndeye Fatou Dioum ne Adji Sarr demal ak Mamour ci néeg ba ngeen waxtaan maanaam demal mu tëddee la mooy wax de Adji Sarr mooy wax de donc ñu dugg ci biir néeg bi tëj. Mamour Diallo futtee ko ba set wecc comme ni ko yaayam jure moom ci boppam maam Mamour Diallo moo futte aji saar ba mu set wecc mu tëddal ko yëg ci kawam moom aji mooy wax de nee na dóor ko dóor dóor dóor ba mu tàng mu tourné ko ajay wax de nee na mu turne ma ma wan ginnaaw mu jël bagaasam boobu dugal ko sama taat nekkaat ci man di dóor di dóor di dóor moom Mamour Diallo moy wax ni re nee na dóor ko kanam depp ko door nako ginaaw mom Mamour yalla borom 94 milliards ku togn waliw de ku togn waliw de ma la wax lolou waliw ken du ko laal ku togn waliw de man maa ngi doog comprendre lutax ñaan sayidina Ousmane Sonko maa ngi doog comprendre nakata ak waja waliw la la ilaha illallah kenn musu ko togn nek ci jamm Ousmane Sonko kenn musu ko ko nek ci jamm ñiko ko yep ko len nañu mujjé Adji Sarr xool ko nu mu mujjee Mamour Diallo xool ko nu mu mujjee audio yëpp a ngi nii ñu yor ba pare partagé ko nag ak ñeneen ak ñeneen audio yaa nga France audio yaa ngi Angleterre audio yaa ngi Russie euh, safala ma naan Russie euh, Corée du Sud audio yaa ngi France audio yaa nga Corée du Sud audio yaa nga Angleterre aji voilà léegi nag Mamour Diallo ñëw fa dëpp dippi foowee aji saar dem yoonam génnaat aji saar defaru ñu nekkaat Mamour Diallo toogaat tuuti dem dem na yoonam léegi nag aji saar xëy loolu di ko nettali maam seen di ne ko nan nan la ko tëddee aller retour bi donc ñu waxtaan waxtaan waxtaan comme d'habitude ni ñu waxtaanee matin matin et soir comme ni ñuy def seen Sénat bi la nekk waxtaan ñoom ñaar et tout ça Corée du Sud mi ngi Corée du Sud audio yii nii ma yor mi ngi Corée du Sud mi ngi France ma nga ca Paris audio yii mi ngi Paris mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi Séoul du Sud mi ngi Angleterre kon nag sama gars yi affaire yaa ngay jeex ñu ngi dañuy continuer dañuy continuer de affaire yi film bi day jeex tàkk tàkk tey tàkk ñu jàll ci leneen weddi dóor woo weddi rek ojo bi ñëw ay ca léegi fan lañ toll